mbokk internet yu neet ginnaaw bu ñu leen nuyoo Ouzin ngeen di àndal ci les minutes de l'info lañu koy ubbeek mbir mu doy waar bi am fële nga xamante ni ab auberge fële ci Daaru Xuduus Mboro benn auberge bu tudd Dalal Gang waaw benn soxna la ñu fa fekk soxna si nag dafa am sax jëkkër waa ji mu nekkaloon tamit dafa am jëkkër waaye soxna si dañu ko fekk mu daal di génn àddina ca biir chambre ba lan moo tax mu génn àddina loolu di xibaar bu ñuy toppandi waaye jàppale ni moom Euh, dafa nekkoon nag ki nga xamante ni du boroom këram waaye ka mu nekkaloon tamit am na soxna nekk ak ki nga xamante ni tamit euh, du soxnaam enquête ba nag waxagul dara ca mbir ma waaye dinañ ko topp information boobu bu ñu fa jigee dañuy dem si ki nga xamante ni moom mooy Joseph Koto xam ngeen ni démb wax nañ leen ci xibaar ni dafa génn àddina ci ab malaise bu ko daal di tëral moom réaction yi daal dinay jóge fu nekk Sadio Mané lañ ci jukki ci page Instagram moom yooyu na yàbbi ci décès bi nee na am na lu ko metti trop ndax nee na mi ngi partagé naqar bi ak famille Joseph Koto ak famille sportif bi yëpp sénégalais yëpp mu ngi leen koy jàll ndax nekk nag nga xamante ni ku mu nawoon la ku mu respecté woon la te koo xamante ni bëggoon na ko lool alors ñu fàttali ni nag euh, Sadio Mané première fois bu mu njëkk a Sénégal Joseph Koto moom moo ko convoqué woon le 25 mai 2012 bële passé Joseph Koto nag mu ngi génn àddina ci juróom-benn fukki at ak benn wuy leen di abonné seen site d'information bii di Dakar Net dara du leen rëcc ci réew